Ucab FM. li gën fës ci yéene Papa Saer Mbaye. simila mbirum xale bi di Idrissa Goudiaby yéen kaay yu bëri moom la xëy kenn ku ci ne ak la nga cee nettali sunu naataango yi xëy di xamal ne kay am mbira moom ba fi mu xam ne moo di bu njëkkoon nañu ko caa def wane rek gaañu gaañ yoo xam ne kon daanaka ñaw te mbir mu ñaw moo ko gaañ yéen kaay bi xëy di xamal ne beneen li nga xam ne ko def nañu ko ca mu doon ab autopsie loom nag la mu gis mooy fetal ci boppam lañu ko door yéen kaay bi ba tey di xam ne kay sikki coor Idrissa Goudiaby nga xam ne kon moom lañ fa faat ak kii di Alexis Diatta da koo aaye woon nekk fukk ak juróom ñaari fan la ñu weesu ñoom ñaar ñi doon ñoo njort mooy ne fetal lañ leen dóor ñu daanu yéenekaay bi xëy xamal ne luñ ci mën di nemmeeku mooy li nga xam ne kon moom loo njëkkoon a feeñ ci eh, kàddu yi nga xam ne kon jotoon na ci ginnaaw bi nga xam kon wàcc nañu liggéey yéenekaay bi ba tey di xam ne ne rapport équipe expertise bi nga xam ne kon jot na ko caa def muy autopsie ba Idrissa Goudiaby la nga xam ne kon moom la ñu jotoon a fësal mooy rek ne daal dafa am benn mbir moo xam ne lu ñaw la moom moo ko gaañ ba tax naka moom ca deret yu bëri ci nga xam ne la jaar ba kanam yéeni kaay bi xëy di xam le ne ginnaaw bi nga xam ne kon gis nañu rapport boobale ak njabootam ñoom nag dañoo lànkoon ne nag loolu ñoom mënuñu ko gëm tax nag ñu sàkku ci lii di parti bu Sikicoor ngir nag ne ñoom dañoo bëgg a beneen contre expertise maanaam defaat beneen autopsie ngir mën a yéenekaay bi xëy di xamal ne ak njabootam la nu bëggoon am nanu ko ndax defar nañ lu jëm ci wàllu le Idrissa Goudiaby nag la nga xam kon jot nañ ko caa gisaat mooy ak ngànnaay goo xam kon fetal la nu ko dóor yéenekaay bi di xamal ne luñ ci mën di jamono ji coow la bari na lool ci mbirum ki nga xam ne kon moom moo di Idrissa Goudiaby mi nga xam kon dëgg-dëgg lan moo ko faat jafe na ngir ñu mën koo xam ndax nag ñaari kenn ku ci ne def nga sa gestu dox nga xool li nga xam ne kon moom moo di faatu gi lan moo ko waral ku ci ne ak la nga ca wax yéen kaay yu bari ña nga cay wax l'observateur yéen kaay ne kay man dama caa xaw am jaaxle dëgg ndax benn faatu ñaari wax yoo xam ne kon benn bokku ca loolu nag kan lan ca mën a gëm yeneen yéen kaay bokk na ca les échos xëy di xamal nag ne jamono ji ndaje mi nga xam ne kon kii di procureur la république nekk ci tribunal grande instance ba ci Sikicoor doon na ko def moom naka mi xam le am na beneen ñetteelu autopsie xam ne kon faaw kon danañ def ngir ñu mën a xam ne kon yu a gis ci na yéen ko ci benn bokk ci ku ne ak la a ca wax yéen kaay bi xëy di xamal ne kon kay faaw rek ñu def beneen ñetteelu autopsie boo xam ne kon dinañ mën a xam dëgg-dëgg dëgg li xew laas yéen kaay moo ñu koy nettali mbir mi ba tey yéen kaay bi xëy di xamal ne benn mbir ñaari kàddu yu bar bokku ci ak sa morom yéen kaay bi ne jaaxle naa ca quotidien sud quotidien ba tey moom itam ma nga ca di xam ne rek ne jamono ji la koñ kay fi mu toll bay boo ñu ko ndax nag lu jëm ci wàllu yi yéen kaay bi di sud quotidien ne genn faatu daanaka junniy wax yu bokkul su naataango yi nekkay lii ak jaaxle dëggantaan am na ca le soleil yéen kaay moom ma ngay fësal kàddu yi nga xam ne kon procureur yëkkati na ko ca di xam le ne ab information judiciaire moom faaw danañ dinañ ko ca am après tam ubbi nañu beneen a xam lan moo ca xaw eh, bi xëy di xamal ne jamono ji li bi eh, a jot nañ ko ci ubbi jamono dox ca na nga xam la war a doxee laata nag muy xam la ne ab ñetteel dëpp autopsie moom du ca mën a ñàkk ngir ñu mën a xam dëgg-dëgg dëgg lan moo faat xale lu góor lii ba tey ubbi për lu jëm ci wàllu information judiciaire bi yéen kaay bi xëy di xamal ne benn juge d'instruction faaw danañ waxtaan ak a bi la jour ba tey ma nga ca seetlu goo xam kon dot na ko caa def ne naka ba fi mu toll ni Idrissa Goudiaby ngir ñu xam lan moo ko faat lu jafe la ndax naka daanaka wax yu ruubandoo yi nga xam kon moom la ne gis yi nga xam kon ñoom ñu waa kër docteur def ko ca yéen kaay bi di source a ne kay li ma jaaxal dëgg-dëgg mooy lu jëm ci wàllu autopsie waa kër docteur ñoo koy def ñaari docteur kenn ku ci ne xool nga ko kii ne lii kenn leen lan moo tax seen ay kilifa ñoom boobaak léegi kenn mënu leen cee dégg muy ordre des médecins yi ñu ngi wër réew mi ngir dagaan baatu askan wi ngir mën a dem ca penc ma teewal leen fa yéen kaay bi xëy di xamal ne jongante législative yi ñu war a amal fanweer ak benn fan ci weeru sulet atum 2022 yéen yéenekaay bii di l'observateur moom ma nga ca dellusiwaat ci lenn ci ay candidat yoo xam ne kon ñoom dafa mel ne dañ leen tëjal lenn euh, bi xëy di xamal ne boo xam ne kon du ngeen fa mën a dugg ndax fii ko moom ñooy borom titre foncier politique noonu la ko yéenekaay xam leen ne xëy lii daanaka ay mbirum kaf boo xam ne kon mën naa jur musiba yéenekaay bi xëy di fàttali rek ne lii dafa doon ay kàddu yoo xam ne kon way politique yi léeg doon ay barab yoo xam kon dañ naan ñenn ci ay way politique fii bu ngeen fa duggee lépp lu leen fi fekk lépp lu ko teg seen ba tey mi ngi xam le ne luñ ci mën di nemmeeku loole dañ ko def seen moomalu bopp ci wàllum ba tax ñu bëgg koo yoo xam ne kon dañ naan leen du ngeen fi dugg te nag loole yoon mayewu ko benn yoon l'observateur yéen kaay xëy def ca ak seetlu di xam le rek ne jamono ji li nga xam ne kon moom moo jëm ci wàllu titre foncier politique moom loolee bay boo ñu bàyyi ci xel ndax mën naa indi ay jafe-jafe Walfadjri quotidien moom ma nga ca président Macky Sall mi nga kon jamono ji ma ngay xam moom Ndakaaru kon ba fu mu ni nga cay kon moom moo ca wàllu jogante yi di lim nettali ne kii di président Ousmane Sonko ak ñamu àndal mbooloo mu takkoo takku ñoom ñoo ko tertu ci ndindi Serigne Fallou su internet bi xëy di ca fésal ay nataal yoo xam kon président Ousmane Sonko ko ci digg mbooloo ma ñu dar ko mu doon loo xam kon yéen kaay bi moo xëy dinu ko nettali su naataango yi Dakar ba tey ma nga xëy ci wàllu jongante ñi nga xam kon dañuy dund ak laago ñoom itam waa Benno Bokk Yaakaar ña leen di bàyyi xel ci li nga xam kon moom moo jëm ci wàllu ko jongante yéen kaay bi xëy di ne Serigne Fallou Mbacké transitaire moom nag ma def kéemtalaay kàttan ngir ñi a e ngir a ñi nga xam kon ñoom ñooy rek kaaraange Ousmane Sonko nee na lépp da koy teg ci suuf yéen kaay bi xëy di nettali kàddu yi nga xam ne kon maître Babacar moom ko dal ci kawam daanaka na taxaw bi nga xam ne kon waa kees taxawu ko ca ma ngay yi nga xam ne kon ñoo ko ca jàppale moom kii di ba si ñi di société civile bu Thiès moo sa cofeele sa jàpp jàppale waaye itam li nga xam ne kon moom dañu ko ñaan ak taxawu ak tinu gi loolu nag tax na nag lépp loo xam kon jàppoon na ko tegani moo xëy dinu ko ne kon ko bi nga xam ne kon jot nañu ko ci nemmeeku si yéen kaay bi xëy di kon moo moom moo leen teg yenn ci ay jafe-jafe yi daanaka njiitu réew ñoo ko yóbbe seen bopp di joxe misaal lu ci mel ne Burkina Faso Faso Mali Guinée Afrique de l'Ouest loolu Afrique soowu jant yéen kaay bi moo xëy di xamal rek ne jamono ji ay jafe-jafe dëggantaan lañ ca jot di nemmeeku ndax la ko war a daanaka njiitu réew yi nga xam ne kon dañuy bëgg mooy ci nguur gi loolee mooy li nga xam ne kon moo leen yóbbee jafe-jafe yi waykat bii di méewe ci yéen kaay bii di iGFM point sn lay xëy di nettalee lu nu mel sunu naataangooy Dakaractu point com ca la nu koy jeexale yéen kaay bi xëy di xam la rek ne luñ ci mën di nemmeeku jamono ji li nga xam ne kon moo jëm ci wàllu ko nawet bi ak lépp loo xam ne kon doon ay jafe-jafe yu ñu cay nemmeeku sunu naataango yi ñoom naka ñu nga xëy dinu xamal li nga xam ne kon moom moo di jafe-jafe askan wi ñu ngi ko ci dund Dakar Actu point com nekk bi def ci reportage bu yaatu ak jafe-jafe askan wi ñu koy dund ci nawet bi yéen kaay ngoog dajël inchallah UCAB FM li gën a fës Papa Saer Mbaye